salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi leen di béggee te di leen màggal bu baax a baax mbég ak ndam ak kontaante lañ leen di ñaanal également di wàccaay wi defe naa ni ñu ko defewoon ak jaalibatul marahiba ah, siñ màgget ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu def émission bu am solo macha allah ñu tudde woon ko euh, siñ bi ak màggal gi defe naa yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci seen bi macha allah abonné euh, commentaire yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye lépp rek ku tedd ki Cheikh a Bamba Khadim Rasoul yaakaari jaam yi moo ko waral ndax it li may wax euh, bu ayee ko nga xam xam ne ki ayee ah, kenn la euh, vraiment ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen màggal fi ñu taxaw nag defe naa gis ngeen wàccaay wi ni nga xam ne noonu lay demee ah, di leen ziaraat daal bu baax a baax fépp fu murid nekk fépp fu taalibe nekk képp ko xëy ne yaa ngi bëgg Serigne Touba Khadim Rassoul rek ah, ñi ngi lay jox sunu loxo te di la nuyu te di la baalu bu baax a baax a baax Serigne Babacar ñu bàyyi euh, di dugg rek tuuti ci waxtaan wi defe naa instant ñu ngi ci wàccaayu dem fi nga xam ne moom mooy dëkk bu tedd ba euh, dëkk bi nga xam ne sunu yaakaar tey ak ëllëg fa la nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. di leen ziyaare bu baax. di leen ndokkeel ci nga weeru safar gi ñu nekk. di waajtaayu màggal bi nga xamante ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg. kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaarewaat bu baax a baax baax. Mhm. Euh, macha allah ñu gis jaalibatul ba euh, tey ji defe naa wàccaay wi euh, jekk na. Mhm. ñu fas yéene dem ci li nga xam ne moom mooy màggal wala ñu màggal. ki nga xam ne moom la suñu yaakaar woote naka ngeen def ci wàccaayu màggal gi. waaw wàccaay bi moom comme ñu koy defee chaque année rek day gën a yokku day gën a yaatu parce que borom bis bi moom moo bindoo noonu yoonu murit moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am. ñu ngi waaj màggal gi comme ni ko ñëpp di waajee fas yéene koo yaatal fas yéene ci jaamu yàlla li ci sëñ bi wax ñu defal ko ko ci mooy bu bis bi ñëwee mhm. koo xam ni mbétti mbékkeem sa mbétte rek nga santale ko ko yàlla mhm. loolu def mhm. comme ngi waaj pour jóge fii pour dem Touba pour waaj bis bi màggal ko comme niñ ko bëggee ci sunna daal moom mooy solo ci moom moo nekk loo xamante moom lañ bëgg. di ci mhm. sàkku tamit ak jaamu yàlla lañ ci bëgg. Mhm. lépp ak sàkku si ngërëmul sëriñ bi daal. Mhm. loolu moom moo ñu tax a jóg. Euh, macha allah ñu gis na ne jaalibatul marahiba moom nekk na daayira bi nga xam daayira bu am bu am bu am solo la ci li nga xam ne moom mooy Rufisque ngeen di liggéey lu bëree bëri bëri ci li nga xam ne moom mooy ndaw yi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim mm-hmm. euh, ndaka ngeen koy dunde ak euh, xale yi parce que defe naa tàggat xale mm-hmm. euh, wala tàggat jigéen léeg-léeg day xaw a métti ci ci ci lu mel nii nga xam ne moom mooy siraatal mustaqim parce que mm-hmm. gis nañ ne jamono ji fomi dafa bëri pour nga woon nit xëcc ko ci li nga xam ne moom mooy lislaam day jafe ndaka ngeen di dunde loolu waaw liggéey bi moom maanaam sell ak yar ak teggin lañ ci jiital waaw ba tax na jubluñ ci leneen lu dul jaamu yàlla itam ku ñu gis nga méngoo suñu doxin ak sa doxin rek dinañ fexe noo tàbbee ci liggéey bi ba nga xamante ne liñ ci bëgg di di nga ko ci am mu gën ngay nekk génn dem di ay caaxaan yeneen ak yeneen yoo xamante ne suñu borom bëggu te ñun maanaam li nga xamante ne li ñuy liggéey mooy ngir gën a liggéey sëriñ bi ci gox bi ñu nekk ba xamante ne day gën a yaatu ci biir Tëngéej ci biir Sénégal fépp daal bëgg nañ maanaam liggéey bi ñuy liggéey ñëpp di ko rafetlu te mu bañ am benn benn benn benn benn loo xamante ne daal day yàq maanaam luy luy taasal deru sëriñ bi daal loolu moom jubluwuñ ko si dañoo jublu ngir liggéeyal ndaw bu ñu gis rek nga nekk ndaw ñu tàggat la indi la ci mbooloo mi pour jaamu yàlla ngir liggéeyal Serigne Touba daal loolu lañ ci jublu ak sax ngir liggéeyal Serigne Touba rek foofu rek la ñuy tuuti dañuy dugg rek li nga xam ne mooy kuréel gi naa wàccaay yi ci gi ci li nga xam ne mooy kuréel gi ci wàllum njàngum xasida yi alxuraan gi euh, ndaka ngeen ko organiser ndax bu ne bu suñ Serigne Touba wootee ci lu mel noonu njàngum xasida yi njàngum alxuraan yi euh, kuréel yi ndaka ngeen ko organiser ci ci ci njàng mi waaw moom loolu moom dañ ciy sawar tontu parce que daar ji daanaka am na ay kuréel yoo xamante ne ñi ngi fi dañuy jàng alxuraan ne dañuy jàng xasida bu ñu xëyee bëccëgu màggal gi maanaam yoor-yoor gi fas nañ yéene wàcce kaamil jàng ko uh, ci bis bi itam bu ñu demee ba ci guddi gi am nañ fi ñetti kuréel yu fi nekk ba ñeent fas nañu jàng tamit ba nga xamante ne day dem ba fajar am nañu kuréelu un am nañ kuréel deux am na kuréel soxna su fi nekk fas nañ yéene daal guddi gi daal ñu màggale ko si sunna ak ay berndeek lépp maanaam <laughs> loolu daal lañ ci jublu jàng xasida gi fës fës nañ yéen a jàng ko ba fajar daal incha allah eh, macha allah noonu lay demee defe naa ko waxee rek defe euh, jigéen lu mu duggul day xaw a yéeme te soxna yi macha allah ku leen gis ah soxna ummu ah, ak seen euh, taxawaay nga xam ne jigéen lu am solo la ci lislaam ah, yéen ñi nga xam ne euh, yéen a ngi ci leneen ñëw leen ndax li am solo mooy société bi jigéen moom moo ko yor bu baaxee day baax waaye bu defee nee ne nit day yéeme euh, soxna mu ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñu daal di dugg tuuti rek ci ci waxtaan wi. asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare di baalu àq ñu. Mhm. bu baax ci seen teewaay incha allah. Mhm. Mhm. leen nuyu leen ziyaar. macha allah defe naa day xaw a métti nag pour wax ci kamara waaye nag euh, mënul mënul ñàkk naka ngeen dunde wàccaayu màggal gi ndax euh, soxna yi defe naa ñoom ñoo war a togg bernde yi nga xam ne war ngeen ko jox jaamu yàlla yi. Mhm. Euh, jamono ji ngeen waaj pour dem fi nga xam ne moom mooy Touba naka ngeen koy dunde jamono ji wax dëgg yàlla ñu ngi koy dundee ak Pastef gëm li ñu doon bëgg ko it moo tax tey jii ñu mën a ne yegg fii ñu nekk ndax ñëpp xam nañ coono bi nekk ci màggal. waye tamit dañuy xamné bëss bi sëñ bi moko jar ndax lepp lo xamné ne dañ koy def ben at la donc lepp lo mëna consacrer ci mom rek dang koy def kon tay ji wax deug yalla ñun duñu santi sa coono lepp luñu am sëñ bi la kon dañ ko koy santé diko ko ko wat waaw mais ndaka ngay wax say moroomi jigen ndax gis nañ fi jamono bi tollu Euh, jamono bi jaxasoo na benn peru jaxasoo boo xëy ne mm. euh, gis nañ ni mu tëddee naka ngay wax jigéen ñi ah jigéen ñi dañoo war a dellu jël li nga xam ne moo nekk seen ginnaaw fàtte ko jéem a dugg ci présent présent mooy ñun bu ñu xoolee suñu maami njëkk yi xam ne ñoom liñ daan dund euh, muy alxuraan ak xasida biñ daan ci liñ ci loolu daal lañ nekkoon muy lislaam kon ñun lool lañu war a roy jéem cee nekk jépp jël lépp loo xam ne safaan la wala lof ñuy lor ñu jéem koo jël sànni teg ne nekk ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg ak si sang bu tedd bi muy seydinaa mu Muhammad rawatina nag ñu ne ñun ay taalibu Sëriñ Tuubaa lañ kon tey jii daal ñun jigéen dañoo war a doon ay roykaay képp ku ñu gis naw ñu ci suñu jëmm ci suñu aspect ci waxin bi ak doxin bi waaw loolu moom ñu ci woo jigéen yëpp pour ñu nekk ci daal mais lan ngay wax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci daayira bi jaari jaalibatul maraaxi bi parce que ay jigéen ñu am pasteef leen ay jigéen yoo xam ne euh, Serigne Touba Xaadim Rasuul rek moom moo leen ñor euh, boo amee kàddu goo leen di dénk rek lan nga leen di wax que fi ñu nekk wax dëgg yàlla bëri na suñu moroom yu bëri yu fi bëgg a nekk kon ñun liggéey bi ñoo ko war a téye ak suñu loxo ndax tey jii ñun amuñu lu ëpp jaalibatu mënuñu dem feneen tamit foo xam ne moo ëpp jaalibatu kon dañuy santaat yàlla ak sëriñ tubaa ak jëmmi sëriñ Maguette mii nga xam ne moo ñu fi dëj mi ñuy conseiller di ñu wax lu baax waaw di ñu di di di def ci ñun daal lu baax kon tey jii ñun dañoo war a nekk ci li ñu nekk. bu ñu kenn fëq ñu roy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di di di doxal mbir mi waaw macha roy ci ñi nga xam ne nek ñoo fi nekk doxal mbir mi en tout cas euh, foofu dañ koy tëjee rek euh, di wax rek xaar leen ñu Touba en tout cas lépp loo xëy bëgg ngeen ko xam ci jale ba tulu ba ci li nga xam ne euh, mooy xasida mooy alxuraan mooy bernde mooy bëgg Serigne Touba en tout cas dinañ leen woon lépp yéen ñi nga xam ne yéen ci diaspora bi xaar leen ñu ñoo ngi ay minutes yu ndaw rek ñu ànd ak ñoom dugg li nga Touba ak Serigne Maguette ah, rek dugg ci bir di xam ne bu ngeen duggee ah gis lu yéeme xam naa ne image yooyu nga gis noonu ah, gis ko rek nga xam ne Serigne Touba rek kenn la ah, yaa ngi seen image yi muy nice muy rafet ah mais lépp da nga xam ne ku tedd ki Serigne Touba rek moom moo woote te bu wootee lii rek la mën a demee te nii rek la mën a la mën a demee daal ndax bëgg gi ko bëgg eh, ndax sëñ bi nee leen eh, Murid Tidiane Xaadir laa ñëpp ah, ba ci chrétien yi sax dañuy dem ci li nga xam ne moom mooy mooy màggalu Touba moo tax image yooyu ngay seen ci sama ginnaaw léeg muy xaw mu demee noonu daal en tout cas ñoo ngi ñëw Touba woon leen li nga xam ne moo xew ci ci màggal gi ak avant màggal gi lépp ñi ngi ñëw xaar leen ñu bientôt wala ay minutes yu ndaw a ndaw a ndaw rek ma ànd ak yéen euh, daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy Touba ak sama cameraman bi nga xam ne moom <laughs> mooy lool